ba pare ba pare man Ousmane yow ki la ne ñun mën nañ la ragal. da lay nax de gis nga gëm loo gis nga ñun boo ñu étouffé économiquement on a des moyens pour survivre dañuy man chaise bi kenn mënu ma fee tere toog pendant cinq ans li ma xalaat dinaa ko wax li nga wax lu waxu dinaa ko wax li nga def lu deful dinaa ko wax waaye tamit li ngeen def lu baax dinaa ko wax. mais li ma doon wax. cest à ki la wax ne dañ la ragal wala yow mun na mun nga tax ñu ragal la kooku dalaa nax. les propos yi nga tënee ci ñun nag man de baal naa la ndax man dama respecté kilifa. duma la traité de délinquant dama la dama respecté kilifa mais nag moytu di tenir des propos offensants en ce qui nous concerne parce que gars nañ la tontu buggaan tontu na la. mais li nga jot yeneen tontu. li ma doon wax ki la wax ne dañ dañ laa ragal dalay nax on sera là <laughs> on parlera. et rien ne nous empêchera de parler dóoral impôt bu ñu jox publicité xeex ñu defal lu la neex. ñun nous sommes des sphinx on renaît toujours de nos li ma doon. essayer de gagner du temps li ma doon wax ci processus bi. parce que boobu tey waxuma ci wax bi.